xëy na beneen pexe léegi nag benn choix mooy am mooy ndax day dellu ginnaaw ca lam nekkoon wala dafay duggaat ci ay manigance par intelligence bu fekkee ne xëy na man xel bi ma yor bay xalaat moom moom la yor war na mën a changer stratégie mhm. nga entamé ay répression tëj jàpp ay nit tëj dugal ci kaso bi ak yeneen ak yeneen nga def ko mhm. mais nga dem ba à la fin à quoi ça a servi de son côté moom ci lu ko jëriñ lan amul mais am na lu graaw tamit lii xew mhm. y kii euh, nous dit que ne fu mu toll nii moom le fils de euh, Cheikh Niass président directeur général bu Walfadjri mm-hmm. qui nous dit que actuellement moom il a renoncé à son nationalité sénégalaise mm-hmm. euh, il déchire sa carte d'identité nationale mm-hmm. je vous je vous je peut-être ñu ñu dégloo loolu j'ai décidé de renoncer à nationalité sénégalaise ah j'ai décidé tey dès lundi je vais écrire au procureur de la République pour demander le statut d'apatride parce que je me reconnais plus à cette sama carte je décidé de le couper je ne suis plus je ne me reconnais plus dans ce pays. man je décide. pour yow solution la. waaw renoncer à votre nationalité. j'ai décidé de renoncer à ma nationalité. j'ai déchiré ma carte d'identité uh-huh. parce que je ne me reconnais pas dans ça gëm naa ne que Sénégalais yi encore une fois doo leen wax génn leen doo wax dara parce que sama pap li mu gëm mooy aaya ak Quran fa qaatil fi la tukallafu illa nafsak mooy engage-toi seul. donc l'engagement du musulman l'engagement d'un citoyen c'est un engagement personnel mm -hmm. maintenant nag wa xaridil mu'minin mooy inviter inciter les gens à le faire man li ma mun mooy c'est je m'engage man personnellement à renoncer à cette nationalité je n'ai pas de double nationalité donc je vais demander le statut d'apatride deuxième euh, les vidéos sont là euh, euh, euh les, les réactions mais Cheikh Niass Cheikh Niass doom ci Sidi Lamine Niass mm. nous dit que moom actuellement l'engagement citoyen et se euh, fait seul. non euh, mhm. gis nga Cheikh Niass. Mhm. franchement li ma ci mën a wax. Mhm. Cheikh nias a été phagocyté. xam nga luy phagocyté. mooy bi ko Macky Sall bi ko Macky Sall ak Amadou Ba wan ne wanaa su ko yàgg na. Mm-hmm. pour moi il joue du cinéma. Mm. ce qu'il fait là c'est du cinéma. ñu yegg. dans ça gëm naa ne que Sénégalais yi encore une fois doo leen wax génn leen doo leen wax dara parce que sama papa li mu gëm mooy aaya ak Quran. ayca tonton Modou les réactions je pense c'était ça la vidéo. <laughs> ça oh, ça c'est des réactions oui. Cheikh Niass. Mm-hmm. man yàgg naa fee ñëw di ko jooy. Mm-hmm. Cheikh Niass est-ce que tu sais que. bi may dem kër Mbaye Ndiaye di ko seeti ji. dama njëkk ci sama kër sœur Wakaam. Mm-hmm. est-ce que xam nga sama sœur bi et la fait vingt ans en France. Mm-hmm. bac mi ngi ko amee France. Mm-hmm. musul jàng alxuraan. sama sœur li may wax l'imam de la mosquée de la divinité Mohamed Seyni Gueye. moo may seede. sama sœur fa la jànge ba mokkal ko. di jox ay di jàngale alxuraan. ci fin wu dundam. te maîtrisard la en anglais. ku dem France jàng fa ba am maîtrise anglais ñibbi si Sénégal loolu suñu mbiru famille la mhm. man sam moo ko di woon yow ci say loxo laay faatoo. il faut nga mokkal alxuraan pour jàngal ma yaasin sama papa sama sœur boobu ci sama papa ci ay sama loxo sœur bi la euh, ruwam rote mu jàngal ko yaasin sama sœur boobu kaamil bi mu doon jàngi alxuraan dafa ma koo may damaa dem këram ma gis kaamil bu rafet ma ne ko euh, kaamil bi ci man la jekk ñu werante mu ree di ma ah mu may ma ko est xam nga kaamil boobu fan la nekk mhm. mi ngi wal fajri mhm. ci ci bi Sidi la Niass dama ko offrir war fajri xam nga lu mhm. tax bi may wax ak Mbaye Ndiaye 2011 naan ko Macky Sall lay jël pouvoir bi. Mhm. daf ma doon bon sama na koy quoi yaakaar ni damay wut si dara. Mhm. ma ne ko mbay li wax ak moom raw xaw ma raw xaal la dama ko laaj yaay kan mu ni ma man su ma jógee ca fa may jógee la waxin maxfus mhm. wàcc ci kaw suuf ci kaamilu alxuraan kese laa xaj information yi may jox en toute sincérité bëgg ma dugg fopp parce que sénégalais yi dañ lay commencé sax naan kii lu mu teg boppam li wax ak man su ñëwee guddi dama ko ne mais yow yaay kan mu ni ma man su ma jógee fa may jógee wàcc ci kaw suuf ci kaamilu alxuraan kese laa xaj moo tax su ma indilee information ba may wax ak Mbaye Ndiaye kaamil baa ngi sama poos ci sama sac ma génne kaamil bi ma teg ko ci samay tànk ni ko Mbaye liy wax ak man man li ma la nee ma Sall lay jël pouvoir bi te borode bu weex la jabaram di sol ma wax la wax ko ay information ci réew bi yëpp yëpp yëpp ma ni ko wax man ci kaamilu alxuraan bii su wàccee ci kaw suuf fi la xajee Euh, ci mais bi may bëgg génn di wax ak. Mhm. waa sénégalais yi li wax ak man dafa ne ma kaamil ba nga doon waxee ak Mbaye Ndiaye. Mhm. mooy doon seen seede. Mhm. soo waxee dina la bëgg a weddi mais yóbbu ko ci une télévision. mu dem weddeeli fa kaamil bi ma dem yóbbu ko ba Walfadjri ma offrir leen ko. mais on m'a fermé les portes de Walfadjri depuis un an. man fii dama fee mës a joxe sama numéro de téléphone pour wut tur fii man. je ne l'ai jamais fait. est-ce xam tax damaa nekk ci xeex bi pour xeexal Sénégal. très digital ñi am portable am internet ñu ngi may suivre mais ma jàpp ne am na ñoo xam ne amuñu portable te ma ni jàppoon ni c'est la voix du peuple foofu lan ma mën a dégloo peuple bi fa lan ma mën a dégloo mais tu sais que Walfadjri on a reçu des instructions me concernant ah bon moi je, je je sais très bien on m'a fermé les depuis gis nga foofu euh, Cheikh Niass je ne pas à ce qu'il dit là xoolal li mu génn wax ci Amadou Ba ñu wax démb Euh, li mu wax ci Amadou Ba bon c'est le meilleur profil wax wax bëgg a xëyaat naan euh, la mu lekkoon wàcc ko ba pare. mais moom Cheikh Niass qui déchire sa sa sa carte sa carte d'identité. Mmh. oui bon mmh. loolu moom franchement du lu ñu rafetlu. Mmh. même si mën nañu comprendre ne peut-être frustration bi ñu am intérieurement. mun na ko pousser moom ba mu. Euh, maanaam def réaction boo xam ne warut a def boobule réaction mais pour man la solution actuellement c'est pas de renoncer parce que ci situation bi ñu nekk. Mhm. réew mi moo soxla ay ay doomu réewam. ak loo mhm. mën a doon ci biir réew mi. Mhm. moo xam kuy wax nga moo xam nga jiite ab groupe de presse ak citoyen koo mën a doon ci biir réew mi. Euh, defe naa ni réew mi ci moment bi la gën a soxla ay doomu réewam ngir ñu taxaw ko. donc ci moment yooyu je pense que waxuma mot de trop mais ce serait très lâche. Euh, ngay wax ay damay renoncer ci sama ci sama nationalité sénégalaise. dafay mel ni nga ànd ak ay nit ñu dugg ci guuta nga ne damay rocceeku bàyyi leen fa Euh, nga jégal ma ci parole bi ma la dagg mm. pour man manque de cohérence la mm-hmm. xoolal ce qu'il avait dit avant-hier y a même pas une semaine mm-hmm. et ce qu'il vient de dire là amul mm-hmm. cohérence man sama xeex bi may xeex ci Sonko nii aw ma ci laayam laayam yi yaa may dégg man dama xoolal dama ci amul xoolal parce que moom euh, lan la wax ni moo ko naqari Euh, li Macky Sall décidé nii. Mhm. mais moom ki muy wax nii moo gën moo gën profil euh, ci réew mi. Mhm. xoolal c'est Macky Sall bis. Mhm. donc moom la la la muy wax ni la muy wax la mu la muy wax ni gëm na ko démb. bëgg ñëw tey naan lii xew damay dé xam nga lu xam nga lu muy wut nii. Euh, dafa bëgg a réhabiliter boppam. peut wax ji bind na xaw ma dañ ko wax. li mu bind c'est trop. moi il m'a déçu. parce que nee moom ay éditos yu ñuy jaay candidats yi la te ils ont ils sont allés voir des candidats yoo xamante ne ku nekk dañu lay defar benn édito. par rapport ak man il a choisi choisir c'est éliminer. Mhm. choisir c'est éliminer. Mhm. xam nga lu mu def dafa wax ni mais est-ce que tu est-ce ban terme la utiliser ban mot la utiliser. Mhm. et le meilleur choix. sa waaye soo choisir da ngaa éliminer mhm. donc lui il a tout le monde mhm. donc moom Amadou Ba Macky Sall c'est son candidat mhm. tey jii su Amadou Ba retiré wu woon ni man Macky damay présenté wu sous la bannière appel mais affaire bi xam la c'est deux c'est deux camps camp du système et du l'antisystème Amadou Ba c'est le camp du système il l'a choisi bu mu ñëwaat fii du ñu indi du quoi que ce soit moom Walfadjri war na bàyyi moi man et j'assume man il m'a déçu Sidi Lamine mi muy tudd baayam bi saa bu doon dund taxawaay bi mu taxaw taxawaay ambiguïté bi mooy lan. Hmm. xoolal taxawaay ambigu xamuñu yàpp la xamuñu jën la. Hmm. xeex bi nag da mën a doon yàpp grand. Hmm. ñu maafe la. wala nga doon jën euh, ñu def la bu jën. mais kenn xamul lu mu doon. mais sànq tonton Mody bi ngay wax. Ah. Euh, bi ci laataa ñuy tàmbali. Ah. da nga ne Macky Sall daf ñu war. bi ngay wax war man je pensais wor nga wax. daf ñu war. daf ñoo war poids la. mais mais man je pensais que war nga wax